Njaañ production moo ko organisé mu nekk journée boo xamante ne journée amateur la waaye ñu bari ci làmb dañ koy xaar Dab Daan nekk ndaanaan boo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb waaye kenn du Mor Kankang mi nga xamante ni musul dégg mu muñal mu fas yéene laal ak Dab Daan Dab Daan ne ko dinaa la dégloo muñal Mor Kankang ne ko fi ma jaarale say morom foofu laa lay jaarale dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi ñu wéyal waxtaan bi gis nañ état de forme bi mu yor gis nañ li muy dégager ci énergie xamuñu doole la xamuñu confiance la xamuñu lan la waaye ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar mbër. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Abdou Karim Mbacké jërëjëf Serigne Abdou Karim Mbacké waa damay wax ne waa Colobane xam naa ne ganu naa leen ak ndax lii ah, dañ di xale rek te tamit dañ ko war a def maa ngi jégalu. maa ngi jégalu tamit ci heure bi kilifa diine tamit maa ngi leen di jéeglu di leen jégalu bu baax ñu wax nañ ma ñaanal waaw damay doole sant yàlla bu baax damay doole sant yàlla bu baax ndax tey mbooloo mi ma gis nii ah su ma def woon dara duñ ma topp waaw dama ci doole sant yàlla bu baax di wax ne képp koo xamante ni moo ngi béggee Mor Kànka moo ngi lay woo ci bisam bu sell bi ngeen ñëw dooleel ko jàppale ko mu jàpp dab daan daan ko ci kàttanu yàlla dina yomb waaw dina yomb lu yomb lay doon. waaw di wax ne maay gërëm waa Colobane aw ma seen fay di gërëm waa Rimao di gërëm waa Réfan bàyyiwu ma juróom-ñaari jëfun paal di gërëm amet Gueye di gërëm Ablaye Tine di gërëm Laye Tine bu baax maa ngi leen di gërëm nañ ma jàppale di gërëm waa Touba bay bàyyiwu ma Ndrep Xombal Caajaay bàyyiwu ma Pire bàyyiwu ma Kër Samba Kane bàyyiwu ma Tiwaawoon bàyyiwu ma Touba Mbacké di sant ñi fi teew ñëpp di sant sama waa Ikiri ku si mel ni Baye Bada maa ngi koy sant Père Balla maa ngi lay sant di sant sama coach su Maxi maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ndax lii may lii may euh, fekk nii barke Serigne Fallou laa la giñal doole fa yàllaaw billaay wallaay hmm. du caaxaan dama ko liggéey su ma ko liggéey woon dama ko def dama ko liggéey. Hmm. lu bi dama ko liggéey lu ma naw laa barke Serigne Fallou laa la giñal. xam nga dab daan mi nga jël. dab daan naa ko nii ñaari combat am laa seetaan. waaye dama dama la bëgg maa ngi seetaan hmm, le jeu Mm. ak Mbaye Tine ñoo ngi laay seetaan. ñaari combat gis nga ni mu def xale yi. waaw ñaari combat yi da nga ne xale yi ne man mm. bokkuñu de. lu tax dama di xale nekk ci yoon gëm li may def su ma gëmul woon damay bay lam wër na Serigne Touba. daf daan nee na xale yi gën a os ci xale yi moo leen freiné. du doon xale bii de xale bii nii dafa am ngëm gëm fii ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye nekk fu ko raw laa ko bëgg weesu. barki sëñ Fallou man xamul caaxaan. nee na da nga koo gis ne ko yow mag nga. nee naa la man. nee naa ñaar même génération la boo la magul boo ko magul yow moom magul. nee naa la man moolu ndaw laa. boo ma joxee pep damay dem boo ma joxul pep damay dem kon damay dem. ah lii bëri ma téye damay dem. nee na moom nit la. yàpp lay lekk naan meew sangoo saabu. man cere lay lekk. cere lay lekk man cere laa xam cere rek. barke sëñ Fallou cere rek. man maa nga waaw dëkk dëkk ba. maa nga cosaanoo Bawol laa cosaano képp koo xamante ne nii bawol bawol nga far làqu li ma lay yokk li génn la. nee na bu arbitre ne prib da ngay yooru ñëw ci tànkam yi nga jëm. ndax da ngay daw xeex bi ñeme ngaa taxaw jàkkaarloo moom wala da ngay bëri. barke sëñ Touba bu ko neexee nan xeex une minute. bu kenn daa seq ginnaaw man sama tànk du seq ginnaaw xale laa damaa gëm li may def. ay don care. barke sëñ Fall damaa gëm li may def. billaay wallaahi. dab dab daan man fa dab daan nga wax. kon dama koy dab daan ko. Hmm. waaw. kan. géant la njool. Euh, non gënt a jaaxul jaaxulut njaaxum jaaxulut mor puy man ñaar ñooy su ma compté ñoom rek li ci des ba compté ak Séeréer rek amutut coow. xeex ak bëre ban moo la ci gën a. xeex ak bëre man man li ñëw baax na man fi ne damaa pare parante wu ma ne damaa pare. la gën a sama liggéey laay yàq ndax ngir lam man ferrailleur bu mag laa woon waaye dama ko yàq ngir làmm kon ah! dama see war a jëriñu. di di caaxaan de barke sëñ Abdou Karim Mbacke daal gi du caaxaan di gërëm rek Racine maa ngi koy gërëm bu baax di ko wax ne lii ah, répété bi ñu def doyagul man dama war a génne lu bes tàq lii nii ay xeetu feem la rek waaye beneen bu ñëwee nga xam ne wóor na yàlla liggéeyal man dama damaa saf mbër. billaay walaay dama saf mbër. waaw Mor ñu gis ni euh, énergie bi ngay joxe. Mhm. booy bàkku mhm. ñu gis ni kon yaakaar jàpp nañ ni kon sa combat warul mën a yàgg ndax li ngay dégager si énergie bu àndee combat bu yàgg dina la arranger. te bu yàggee sax garaawul. ci ñaata minute. man sama combat yëpp xaw ma. yàgg dab lañ wax ci ñaata minute. maag dab bu taxawee. waaw du mat une minute. dab na bu taxawee combat bi du mat bu taxawee laa la wax dëggal boom. Mhm. combat bi mat une minute. Mhm. adversaire yi ma daan bëri. ak dab daan. que am na différence. am na différence non ñëpp ay mbër lañu. yamuñu de. dab daan dab daan si boom moom moom laa gën a jàpp ne moom laa gën a jàpp ne moo gën a euh, yomb si adversaire yi. dab daan njool la de. waaye moom laa gën a yomb moo tax day neex a daan. wóyul Fatma nee na foo ko teg ci bëre. wala ci mystique wala ci lan nga ko teg. man si bëre laa ko gëm. si bëre laa ko teg. yaa daa ko bëre dab daan sama entraînement dama gëm sama entraînement. su ma ko gëmul woon barke Serigne Fall la giñal. dama ko nekk. yaa ci jàpp dama gëm ne. dab daan bu taxawee une minute du ko am. mu ngi lay seetaan koy wax li ma koy wax bariwul daanaka dimanche euh, dimanche daanaka soreetul li may li ma koy wax moom yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak jàmm rek waaw bàyyi ma fekk jàmm mu ñëw ba bis ba ma daan ko si kattanu yàlla mu dem ñibbi waaw man nag fa ma jóge daa sori ñun danoo paas ñëw kon dama see war sama dama see xar sama tànk dama see war a xar sama tànk hmm? adversaire de combat yëpp dañoo gis da ngay apprécier. sa adversaire daan ko. lan ko loolu jaaxaluma non loolu jaaxaluma. barke Sëñ Fall loolu jaaxaluma. man ñi ma yar yow bàcc yow singa nga bokk bàcc man yàlla dafa def ne lu bon bon bon ñëw naa sa ñëw naa sa sa sa écurie tàggat nga ma xam nga li nekk si man li nekk si man dama koy jëfee jëfee gu ma ko de man xale lu ndaw laa nee la moolu ndaw laa boo mu joxul pep damay dem boo ma joxee pep damay dem kon dama war dem. non dama war a dem. boo oui. dañ ko mu ni. tundu mhm. jandeer yëpp. seet bu ko taan jam ñaajo tundu jandeer yëpp. Mhm. dañ ko sas. dañ ko sas. sas yëpp mooy daanal ñu man man nag kon tey yéen waa Bawol yéen a koy dégg moom ak waa Kajoor yéen koy dégg ak waa Siin dama la bëgg a xamante ni képp koo xamante ni moo ngi yor course di julli ka jàpp dama bëgg nga ñaanal ma daan dab daan si kattanu yàlla waaw muy bawal. waaw waaw bu xeexee mu dóor ko mu daanu bu bëree ma daan ko dama ko gëm. keroog ñu gis si signature bi. gis nga Fatma Diaw bis boo déggee ne moo da ngay xeex fa daaw rey na nit fa yàllaaw loolu maa la ko wax loolu sama yaay moo ma bul xeex moor del jàpp daan. bul génne deretu nit. waaye bis boo gisee bis boo déggee ne mor tànk yóbbul nit ardo bu dikkee du bërewaat. maa la waxal loolu. ooy. ku doon liggéey na nga wàcc. borom tool bi dikk na mu ne ko gi jag rek jat git gi jat gi jat cagi jag gi moo koy fecc ku dégg moo koy fecc. nee na loolu mooy lan loolu mooy lan borom tool ñëw na man damay bay man béykat laa moo tax képp koo xamante ni béykat nga ñaan la loolu mu béykat ay bërekat ñoo man dama ko gëm bii yoon sax gopp laay indi si làmb ji gopp gopp bi ni béyee moom laa indi si làmb ji waaw dab daan dab daan foo jaar mu ruuj ba mu set maa la waxal loolu acca ñu ñëw ci benn question rek ñu ñëw ci benn question rek ñu ñëw ci benn question rek keroog dañ gis si signature bi mhm. bi ngeen siñee bay dem mhm. ñu gis ni say ñoñ mhm. am na si ñoo xamante ni jël na la xaw ma liquide xaw ma ban café Touba sotti ka ki nga xamante ni mooy dab daan ci côté boobu noonu lu yàq làmb lay doon tey ci loolu ban message nga siy jàllale ba nga xamante ni bii dinañ bàyyi mbër yi ñu mën a bëri àggali làmb yi waaye man loolu barke Serigne Fall yóbbu ma ko démb daal laaj sa la démb laaj barke Serigne Fall sama kanam billaahi wallaahi a ku dee sa bàmmeel. jërëjëf billaahi wallaahi laa lay ginal. loolu noonu. man du ma yàq lam man du ma préparé ba dimanche jot. Hmm. ba dimanche di waaye jot. Hmm. ma yàq lam ji non non man damaa pare. di ko wax na ni ko ko def. Hmm. waa na ko jégal te yàlla tax. na ko jégal yàlla tax ñun. fair play rek la ñu xam. waa Bawol. xamuñu yàq de. ah waa Bawol xamuñu yàq. waaw di wax ne man. ooy waaw. waa Bawol. dama leen di sant. na leen lamb ji bu kenn xeex bu kenn xuloo man man maay xeex maay xulo man maay bëree maa takk ngem kon bàyyi leen ma xeex bàyyi leen ma xulo ma daan daan bi si kàttanu yàlla. nga gën a sensibiliser say supporters ndax léegi. supporters yu mbëri dañoo rakkaaju bu ñu daanee damm sées bu ñu leen daanee ñu. damm sées man samay supporters du ñu damm sées. bawol bawol xamu ko. bawol bawol paas dugg seetaan noobul la. bawol bawol noobul la di sant waa Colobane bu baax a baax a baax di sant waa mafia Colobane bi mafia Colobane bi maa ngi li sant waaw ñoom kiriku booy yëpp su ma limbee damay juum ay ñoom ah, waaw ma maa ngi koy sant di sant ta màggat di sant sama yaay ñaaño maa ngi koy sant bu baax di sant maire Dieye di sant ah, sama maire bi ah, nu tuuti maire Diène di sant maire Diène di sant euh, maire yi ne fi koñ bi yëpp maa leen di sant di sant sama ñaari séex yi Mourtala ak Serigne Salihu maa ngi leen di sant ñu ñaanal ma Mourtala Serigne Salihu maa ngi leen di sant ndax xale yu xale yoo xam ne dañ maa bëgg ay waaw neel seen bàjjen nag ñu jàppale ma Mourtala kaa ñu dem sa bàjjen ñu jàppale ma waaw man dañ ma war a jàppale man leen rek laay ñaan leen rek laay jooy man nan ma gënal ay bolok bu ma gënal ay bolok man ma jox ko samay nit ndax man kenn mësuma jëndal bolok barke Serigne Fallou dama bëgg a feesal bi balaa midi daa la wax balaa midi daa la wax stade bi fees del billaay wallahi laal gi da nga bokk ci ñuy dundal man bawol bawol yow bëgg man damay dundal lam man bawol bawol yow bëgg barke Serigne Fallou rendez-vous dimanche. incha allah waaw incha allah si kàttanu yàlla. incha allah ñëw ma daan la ndànk dem ñibbi. waaw tonnerre di sant tonnerre bu baax. di sant Adama Ndiaye. Baye Djili. Ah, di sant Thiaw Star. di sant Bale. di sant Balla ak Mo. ak Balla Lour. waaw di sant Dije. di sant Modou. waaw di sant ba ba Laye bu baax. maa ngi sant Cheikh. seex maa ngi koy sant seex sinuwaa maa ngi koy sant bu baax balla fëggi jaay waaw balla fëggi jaay yëpp maa ngi leen di sant waaw waaw di sant moo ndax bu njiifun pal la jóge ak gangom omar ñoom ñëpp maa ngi leen di sant Ablaye bay Baye mu Mbaye Entine ñoom ñëpp ñoom Serigne Saliou waa njiifun pal gépp daal maa leen di bëgg jaajëf